أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء ni Cheikh Babacar Dia Diaw Falfara di yaa ngi dégg Diaw Falfara leer na ma ni boo ko xamul mosoo ko gis yaa ngi koy dégg kii mooy Cheikh Babacar Dia Diaw Falfara bi ngay dégg ci réew ak bitim réew di un grand médecin traditionnel bépp jàngoro booy jàmbat mu tawoo faju ay bul yàlla booleeg jëmm ji di Cheikh Babacar Dia Diaw Falfara kon lay nga xam ne ñi daan man ña ngay man ba léegi boo amee rab jinne ba sax nit guddi sonal la dawal gaaw seeti Cheikh Babacar Dia Diaw Falfara boo amee ndoxum siti hémorroïde interne ou externe dawal gaaw seeti Cheikh Babacar Dia Diaw Falfara fan boo bëggee bayra boo xam ne góor jigéen mag ak ndaw ñëpp lay sopp ba nga ne lii lan la baa sax nga bëgg bayra jaay ba jaay ma jaay ma sonal la dawal gaaw seeti Cheikh Babacar Jadaw Falfara léeg-léeg nit toog noonu taw yi dara doxul bu tawee dox dawal gaaw seeti Cheikh Babacar Jadaw Falfara yow mii di góor boo tëlee baa sa ngóor a wàññeeku dawal gaaw seeti Cheikh Babacar Jadaw Falfara yow mii di jigéen bu la am doom tawee dawal gaaw seeti Cheikh Babacar Jadaw Falfara listixaar boo bëggee xam sa sarax sa rawaan baa nga am gént gu la jaaxal lool dawal gaaw seeti Mbacké di Cheikh Babacar Diadiaw Falfara du yéen a ngi dégg Cheikh Babacar Diadiaw Falfara bàyyiwul dara Cheikh Babacar Diadiaw Falfara disponible na fii ci Sénégal ak li ko wër rawatina ngi nekk Dakar ak dëkk bu sell bii di Touba jokkool ak moom ci 77 365 12 12 wala ci 76 365 12 12 def léegi gis léegi faj say aajo ci lu gaaw bu ko gis muy jàmbat donc andi ci lu gaaw kookoy Cheikh Babacar Diadiaw falfar sunu cabinet moo tudd Diaw falfar Cheikh Babacar fara kenn dootu jàmbat tawat ci mi